président par séquence cinq ans la wax bu njëkk bi mooy doog a jeex moo taxoon mu dem Paris ànd ak ministre des finances équipe ministre sectorielle yi andi njóora ci réew mi ndax programme am bii financé nañ ko ba wis ko ba wis ko te demul loxoy neen ndax ba muy dem ci suñu économie suñu koom-koomu bopp daanaka programme bi financé nañ ko lu ëpp moitié ba muy laata de partenaires yi wóolu ko wóolu Sénégal jox ko ba wis ko on a même marge pour développer de nouvelles initiatives cinq initiatives yu mag yi nañu jàpp programme bu président Macky moo tax keroog ma ne président yooyu ni président Macky wéet na ci candidat yi ndax la bande des quatre yeneen ñeent ñi kenn amu ci programme dañuy wër di wax rek mais seen programme nañ ko génne teg ko di ñun ñu ko ñu ñu dem Paris xool ndax dinañ àndaale dara l'aide à la presse loolu incha allah dinañ ko taxawal te fàttewuñu tam foofu vingt cinq pour cent de ce fonds de ces ressources seron dédiées à la presse en ligne parce que c'est le métier du futur qui est en jeu. Je vous Monsieur le Président.